rahmatullahi taala wa barakatuhu téléspectateurs yi nga xam ñoy déglu ak di sétane sen chaîne bi di dentatv.com ak sen mbokk sen soppe sen xarit sen talibé mohammed Dabakh Cissokho ci sen émission bi di al ilmi wa nur nga xam xam-xam ak lèr dong ji taxajuk ñi ngi nuyu bu baax Mouhamadul bashir ak wa Touba meneen njuróor ñu leen di ziara jox leen seen wàccuwaay ñaan yàlla xéewal gi nga xam ne ñu koy def ci jaam yi ngir yombalal leen suuf ak dëkkuwaay yal na yàlla defa leen jàmm ca loola. bi ci des ñu nuyuwaat bu baax ñëpp képp koo xam ni yaa ngi déglu ak di seetaan émission bi di nga xam ni muy al ilmi wan nuur indi leen waxtaan wu am solo tey nga xam ni bokk na ci juróomeelu ponk lislaam ndax bu leen fàtti ni yun teer muhammad alayhi salatu wasalaam moo ñu wax ci xadis ni tabax nañu lislaam ci juróomi ponk qaala rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam yun teer muhammad alayhi salaam wax ni tabax nañu lislaam ci juróomi ponk ñu ko yaa muhammad ponk yooyu ban ak ban la mu ne shahadatu an la ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammada rasulullah mooy seedi bi ngay seedi ni amul benn buur booy jaamu te jaamu gi nga jaamu di di di war ci yow ñàkk koo jaamu di lor ci yow illallahu ku dul yàlla kon ñu jàpp ni keneen koo jaamu ku dul yàlla yow ak kam koy jaamu yëpp ba ca des واشهد ان محمدا عبده ورسوله ولا واشهد ان محمدا رسول الله عليه الصلاه والسلام موينغي جلوجي سيدني محمد عليه الصلاه والسلام موم داو يالا لا موم سبي يالا لا موم نيبي يالا لا نخ مودن واخنان انا من الله wal muminina minni yéen ñëpp yéen a ngi bàyyeekoo ci man waaye man maa ngi bàyyeekoo ci yàlla abaana min nuurihi nuuran nabil alami ba yàlla na may feeñ daa sàkk yonent Yàlla Muhammad ci leeram jël leeru Moustapha sàkk ci mboolem li mu am ci mindeef anta lazi min nuurikal badri ak tasa wal shamsu mushriqaatu bi nuuri bahaka kookoy sayidina Muhammad alayhi salaatu wasalaam kon nga dellu seede ni yàlla bi yonentam la ndawam la waaye rasul ab jaamam la yàlla na moowee yonent yàlla Muhammad mooy abd yonent yàlla Muhammad alayhi salaam daan na wax naan bokk na ci tur yi gën a neex ci tur yi ma yàlla tuddee mooy keroog ba may rañaane na ma woowee mooy asra bi abdihi mooy kii sama jaam la rañaane naa sama jaam bii di Muhammad alayhi salaatu wasalaam ba ci des mooy iqaami salaat taxawal julli mbokk amul ku julli wàcc julli amul ku mu wàcc dañal rijaal wa nisaaw amul ku julle wàcc ci góor ak jigéen nit mënul am maqaama bu toll ni yàlla wàcceel ku julli ak ku mu mën a doon ndax bu julli doon wàcceel kenn yàlla bu wàcceel ku yonent al Muhammad ndax bes ñëw na Muhammad di julli alayhi salaatu wasalaam julli ga métti mu amee ci tawat tànk guy metti na mu sampee tànk bi di julli yàlla ne ko eh, ba mu wuyu ko mën na ko dëggal tànk boobu teexi ñu maas ko maas kaw mi tooxa ma anzalna alayka al-qur'ana litashqa ñu maas tànk ñu maas loola maasu kaw te ñu ko maasul maasu suuf Muhammad dëgg tànk booba moo tax wa shaddi min sarabin axshauhu wa tawa taxtal xijaarati kashxan multaxal adami yéen a ci Muhammad alayhi salaatu daan na julli ba xiif dikkal ko daan na jël ay leggi xeer takk ko ci biir wi ak boom ngir mën a taxawal julli kon yàlla bu doon wàcceel kenn ci jaam yi julli kon kookoy lay doon mbokk yi yàlla déggal ñu ñu taxawal julli waaye ñuy julli ca waxtu wa inna salaata tanha anil faxshaay wal munkar ken ñu julli ni ñu ko yàlla santee yoon ca Muhammad ba muy faatu la muy la muy wax ca làmmiñam ba nu muy dogee Sayyidatuna Aïcha ñu ne nañ Sayyidatuna Fatima la nee na jël na noppam moo teg ko ci gémmiñu yoon ca Muhammad mi ngi dégg muy naan ndege ma fonkul julli te te ngeen ma te teel jigéen fonk leen ma julli te ngeen teel ma jigéen fonk leen ma julli te ngeen sutaalal ma jigéen kon nan fonk julli itaay zakat mooy joxe azaka ci ki joxe azaka ci ki donc kuy julli amul ku mu wàcc waaye azaka am na ku mu wàcc ka la mooy ka nga xam ne amul la mu lekk kon amul la mu lekk du am lu mu joxe waaye ki nga xamante ne am lu mu lekk te am lu mu denc kooku azaka war na ko kon ci ponk yi la bokk ban moo ko juróomeel mooy xajjal bayt ci lañ toll mooy aj màkka mbokk Sénégal tey ak feneen fu dul Sénégal fu julit nekk te nga am lu néew lu lew lu la mën a yóbbu màkk dégg lu ma wax lu new te lew kon da ngay déggee ni pour dem màkk ziyaara ji Seydina Muhammad foofu nga am lu lew waxuñu xaalis boo tekkee ca natt ba boo tegee ca natt ba déedéet wax ñu xaalis bu ñu cotiser déedéet xaalis boo xam ne da nga koo liggéey mu leew la wala loo xam ne lu ñu liggéey la mu leew ñu jox la ko ngaa ji ca màkk boobu alal leew na ci nga yóbbu ko màkk waaye waxuñu alal boo tegee ca tontin wa wala ay natt kii joxe dix mille ko joxe junni am ko matal am ko matulul ñu dajale alal boobu jox ko kenn bu demee ko màkk boobu dem màkk lewut mbokk yi boo bëggee lu lu yóbbu màkk te leew la liggéeyal alal ju lew wala nga am ka nga xam ni lam la jox lew na ko dong nga demee ko makka waaye nag mbokk yi buñ bëggee topp ña dem màkk ñëpp ba xam lañ yóbbu lew na kon amaana ñëpp baa leen delloo si ndax léegi benn mag day wax naan léegi dem màkk mook dem ca euh, marché caare ñoo yem ndax la yóbbu màkka benn lewut wala nga gis ku de ku am sax la la yóbbu màkk te mu lew waaye fa bàyyi ay bor yu dul jeex ca gannaaw wala nga am koo xam moom lu ko yóbbu màkk lew na waaye ma nga bàyyi dépense gu matul ci ginnaaw wala nga xam ni la ko yóbbu màkk lew na waaye bàyyi na bor bu mu war fay te fay ko ci ginnaaw wala nga bàyyi gis ka nga xam ne la ko yóbbu màkk na waaye bàyyiwul dund gu mat ci njabootam bokk yi dem màkk war nañ ko seetaan ci demee màkk du noonu wala boog ñenn ci ñu demee màkk du noonu yii feek critères yii feek am na ci seg dem màkk des na dem màkk te bàyyi bor dem màkk te bàyyi dund gu matul dem màkk te bàyyi ay sew-sew dem màkk te bàyyi ay histoire dem màkk te ay coow yooyu de dem màkk jaaduwut moo tax mag ñi buñ daan de buñ daan bëgg dem màkk dañ koy waajal dañ koy waajal at baa waajal ko ñaari at lépp luñ fi am ci bor daañu ko fay képp ku ñu xulool daañu dem jubóog moom képp koo xam ne jàppan ñi ab noonu la daañu dem jubóog moom ndax jullit baax baax waaye très bien moo gën ci jullit que bien jullit très bien moo gën ci moom que bien moo tax gis nga dem màkka te mu leer la ne yow am nga noon dem màkka te mu leer la ne yow ka nga bokkal jubawu leen dem màkka te mu leer la ne am na ñoo joteel te jubawu leen mbokk yi noonu demul dem màkk boobu jaaduwut wala nit ki boo war dem màkka gannaawam daa war a leer nañ comme ni jant leere waaye dem màkk dem màkk boo xam ni puukar moo la fa yóbbu dem màkk boo xam ni ngistal moo la fa yóbbu xubbarias si dara wala textarit abadan maam Cheikh El Hadji Mansour nee na nañ bàyyi ngistal ndax ngistal daf ñuy jural xooñuk safara mbokk yi bari na ñuy dem màkk la leen fi yóbbu du leen lu dul ngistal du leen lu dul ngistal te nag képp ku dem ci fi nga xam ni ka fa tëdd bu dul woon nag moom dara bu am boobu dem war ko waajal bob de ko ko wadjal mam Cheikh El Hadj malik bi nga xamé ni jot ci mu war dem Màkka daf ko def qasida di ci tawat lol di ko joy dam ma ci bir wayo banan fo fa dunyaakum hëekum is qada anil zawr min daaril qabib qalilu nee na seen adduna bii bu fekkee ne mënuma cee dem màkka man Cheikhul Xaaji Malick kon seen jamono gii jël leen soxlaatuma bu fekkee ne man mënuma cee dem ziara ji këtt de màkka ak madina ka nga xamante ni bu dul woon ak moom dara du am hiya taybatun taabat li tiib usuliha wa madinatun rabbu samma sammaha ndeysaan maam Cheikhul Xaaji moom la ko daan wooyee daarul xanaa fiiha alxina wa gëzal muna daarul xabibi xulubuna taqwaha taqwaha ka tëdd ca Madinatul Munawwara nga xam ni moom la yàlla jagleel mboolem li am ci àddina nga xam ni moom la yàlla jiital ci mboole li mu ci àddina nga xam ni ëllëg yowmal xiyaama bu jaam ñëpp jàqee moom mën a moomay njëkku jóg ak njariñ bu ko yëngalee ndeysaan mag ñi nee nañu la mu tëddaale la mu faatawaale njàpp ga mu deewaale bu yëngalee bopp ba tooy tooy njàpp googu dee dal ci kaw jaam Juk war kabar kàbbar yàlla ne ku dee te amul julli laajal loo soxla ci jaam ñi ma nga ànd ak ñoom tum tum tum tumi dugg biir aljan mbokk yi sang boobu ku war a dem ca fa mu tëdd war a faa demee ak dal mbokk yi sang boobu ku war a dem fa mu tëdd war a faa ak lewte mbokk yi sang boobu ku war dem fa mu tëdd war a dem ak jubóog say mbokk mbokk yi sang boobu ku war dem fa mu tëdd war a faa war ak say dëkkandoo mbokk yi sang boobu ko war a dem ca fa mu tëdd waroo am benn gàkk-gàkk jamul ci sa gannaaw lépp loo am ci sa gannaaw dafa war a leer ndax boo fa demee dafay mel ni la nga avant ngay gën a àddina ni nga ñàkkee woon bàkkaar noonu ngay mel set wecc ci bàkkaar ustur lana bi sitrika jamili fi diini wa dunya bila tamsili am na ci jaam yoo xam ni même buñ defee bàkkaar sax yàlla ya du yem ci jéggal ko waaye da koy soppi def ko muy ay xasanaat def ko muy ay yiw yàlla ñu bokk ca ñooña ka tëdd ca Madinatul Munawwara koo koy soppe Seydi Seydi Hadj Malick mooy yaakaar maam Cheikh Ahmad Bamba mooy maami Cheikh na Cheikh Sadbu mooy soppe ma Abdoulaye Niass ko nga xam ko am tey la nga am yaa ko amee ci barke Seydina Muhammad boo demee ca Cheikh maam Cheikh al Qadim ma nga xamaan Muhammadun misaaluhu lam yaati fi mamada wa abadan la yaati kooku kenn du moom li kawnil Mustafa raisa li kulli man qat fujul ruusa ñu ne ko am Cheikh al Xadim kooku mooy kan mu ne huwa nabiyun wa rasulun wa xalilun wa huwa xabibu wal imaami wa dalilun kooku moom si kooku Seydina Muhammad nga xam ne la mu amee yëpp yàlla ko ko jox fa huwa lazi tamma maanaahu wa suratuhu summa stafaahu xabiban baria nasami yàlla ko tànnal boppam te li njëkk mu ko tànnal boppam yàlla dafa inspecté Seydina Muhammad ci mboolem fu mu ko mës a jaarale rek mu sa faa génn na foofu Seydi fa yàlla jaarale yoon ca Muhammad jaarale wu fa keneen moom dong la fa jaarale te ba mu ko fa jaarale réussir na ko moom Seydina Muhammad alayhi salaatu wasalaam mbokk yi kon ku war dem ca ku dem ba fa mu tëdd nga fa dem ak leewte waaye boo fa demee ba ñëw nag ñu xam ni kii demoon na ca Seydina Muhammad waaye dem màkk ba ñibbisi mel ni ku demoon caaro yi dem màkk ba ñibbisi mel ni kuy xawaare dem màkk ba ñibbisi mel ni kuy matine dem màkk ba ñibbisi mel kuy xumbal kon ci koo demoon mbokk yi kenn demul Tiwaawan ba ñibbisi ñu ne la alaaji kenn demul Tuubaa ba ñibbi si ñu ne la Adja déedéet fenn boo ñibbisee ñu soppi la soppi sa tur ñu ne la ba nan la alaaji demoo feneen bam foloo kooku mooy Muhammadun misaaluhu lam yaati amul ñaareel amul denn ne amul kuñ koy niróoleeg naan kii mooy ñaareel Muhammad amut fii maa mada ci lu weesu waawan ak li ñëw laayaat yi déet ñuy misaale wala ñuy niroole wala ñuy dendale ku mel ne bàyyi Fatima ak Roqaya mbokk yi demin nga na lew demin nga na jaar yoon waaye nag bu lewee ba noppi jubal say mbokk bu lewee ba noppi jubal ak say dëkkandoo bu lewee ba noppi fayal say bor waaye dem màkka yóbbaale tonu bàkkaar ku ñëw ne ana diw dem na màkka sa xel dem ci bambam la ameel ku ñëw ne ana diw dem na màkka sa xel dem ci tooñ jam la tooñ ku ñëw naa ne diw dama màkk sa xel dem ci iñaan gama la iñaane déedéet nit ki bu demee bay dem màkk na fa demee ak xelu dal nit ku demee bay dem màkk na fa demee ak ak ak ak ak euh, ubbeeku gu dal ak xelu dal ndax foofa ku fa dem ba ñëw loo amoon ci baakaar yàlla raxas ko mbokk yi yén teen ma xamante ngi noonu mooy sangu-sang yi mooy ki nga xamante ni yàllaa ko tànnal boppam mooy ki nga xamante ni yàllaa ko jag mooy ki nga xamante ni yàllaa ko teral mooy ki nga xamante ni lu mu am yàlla Moustapha moo ko gënal moo tax yàlla wax ni su ngeen bëggee rek ma bëgg leen bëgg leen ma yonent bi in kuntum tuhibbuna allaha fattabi'uni du ma yem ci loola waaye dama leen di jéggal seen ay ñaawteef moo tax waa ji wax ni wa waqaftu inda albaabi waqfata qaadi'an mutawassilan mustashfi'an bi muhammadin nee na man daal maa ngi taxaw naa ci buntu yàlla wa waqaftu taxaw naa indal baabi ci buntu yàlla waqfata qaadiyan maa ngi taxawee taxawaay ko tooxlu waaye bu tawassulan mustashfiyan maa ngi sàkku sippiku ci baakaar waaye maa ngi sàkku maa ngi sàkku rambu ca kan ci bi Muhammadin Seydina Muhammad kooku inni kasirul zanbi maa li xillatun qaddamtu bayna yadayya matha muhammadin inni naka man kasirul zanbi ku fi de ku fees jël laa ci baaka te maa aw ma lii mu ñeel ma xillatu xilla muy pexe xanaa lenn ñu ne ko mooy lan mooy xanaa tagg sayyidina muhammad qaddamtu bayna yadayya matha muhammadin mbokk yi lu waay am yaa ngi ko amee ci barke sayyidina muhammad mbokk yi lu waay am yaa ngi ko amee ci barke Seydina Muhammad ku yàlla dimbali ba nga am lu la am lu la mën a yóbbu ca baytil ayil haram nga mën a ziara ci Seydina Muhammad ngal la laata ngay dem fayal say bor jubal say mbokk jubal say dëkkandoo baalu ñëpp a xaq nan ñëpp baal xaq bul yóbbaale benn ayib bu ñu yóbbaale benn tooñ lu yóbbaale benn gaañ booy gaañ sa nawle wala gaañ booy gaañ sa bëkk sa dëkkandoo wala gaañ booy gaañ sa mbokk ngir boo demee la ngay ñaan yàlla mën ko nangu ndax bari nañu dem Makka ba ñëw demuñu fenn yàlla reconnaître seen aj te duñ duñ duñ ko nangu kon nag boo demee la fay farate incha taala daañu si ñëw xam naa émission bii di ñëwaat daa ñu ñëw lay faratay euh, bayt lay xaraam boo demee aj màkka dafay farata say sunna ak dafay mustahabaat ci ngëneel nga def ko incha allahu taala ñu ne yéen ci aj daa daañu leen wax këtt de foofu kan la naka ko suñu mag ñi tagge ci taggin wa rafet wa ci waynu rafet ya nga xamni amul ñu kenn ku dul mag ñi te mag ñi amul ñu kenn ku dul sayyidina Muhammad ku ñu bëgg la bëggal mag ñi ndax mag ñi Mustafa lu ñu bëggloo akhulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum assalamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh